mbirum góor jigéen Sonko bako mbirum góor jigéen bako Naby Vision bako ngir yàlla parce que da nga tëddee ay góor bañ am interne leen hôpital nga sëyeeg ay jigéen ba ñu jiij la sodomi euh, asalaamaaleykum Sénégal maa ngi leen di jaar euh, gis nga la liberté d'expression dafa am limite waruñu ko accorder certains esprits libertins gis nga kii li muy wax nii

gumba dina tal leneen lu tëb ay teen ñii liñ nekkee Sénégal yéen leen ci bàyyi doomu xaram yi tekkiwul dara yi kii bu doon nguur Ablaye Wade la wallaahi la xewoon régal lu ko raw dana ko dal eh, man de xaw ma kande mais bis bon bu man nekkoon Sénégal jamono ji billaahi wallaahi taalaahi yenn doomu xaram yi nii nii billaahi wallaahi taalaahi fu ma dajoog ñoom dinaa jàmbaarlu ak ñoom dinaa leen jaay sama bakkan parce que trop c'est trop trop c'est trop yi

dama doon surfer sur TikTok gis benn vidéo Bah Sénégal damay laaj ndax am procureur instant bi nii parce que disons-nous la vérité bi fi Macky di procureur bi Sénégal nii ku ku yëngu mu ku Anita ay nit ñoo xamante ni dañoo taxaw di signaler ay nit mu dem di leen jàpp di tëj ci kaso bi da ngay mu sa mu sans preuve nit ñi duñu def dara mu li mu tëj ay doomu jàmbur yu deful dara kenn xamul nu mu toll juste parce que moom Bah wala Anita wala keneen keneen ñooy signaler ay doomu jàmbur mu dem di leen jàpp di leen tëj ñun waxuñu moom mu def comme ni Macky Sall doon def ndax bëgguñu loolu li Macky Sall def bëgguñu koo def waaye nag am na yoo xam te ni dafa ëpp trop c'est trop tekkaaralam gii nii ëpp na mun ma gis ku mel ni baajaxate toog léegi-léegi ni def laay bam wax wax ci wax yu graaw a graaw a graaw yoo xam te ni kii warul fanaan këram tey dama bëgg patriote yi ngeen partagé ko ba procureur baaxum jot ci. parce que moom Bah tey warul fanaan këram c'est trop taxaw wax yu wax soo ko mais mais attends mais ñun mais mais patriote yi nekk Sénégal ñeme woon nañoo amul benn patriote mun leen maa wax fii. benn patriote bu nekk Sénégal bu mus a génnee wax bu ñaaw génnee à visage découvert wax ko Macky Sall amut.

ak ñeneen ak ñeneen mais moom bosam moo gën a garaaw kii warul fanaan këram weekend bi warul fanaan këram li ma dégg mu wax ko amu ci lenn cest boo ko jàppee du question da nga ko jàpp parce que deful dara jàpp ko laaj ko li mu wax mu indi ci ay preuve bu ci indi ay preuve nga bàyyi ko mu dem bu ci indiwul ay preuve ñu teg ko ci yoon balaa sénégalais yi di fayul seen bopp parce que mi ngi bëgg ëpp bu ko deful sénégalais yi dinañ fayul seen bopp parce que peut-être ñàkkuñu fayda lii dafa ëpp mu wax nii pour que patriote yëpp partager nit ñi gis ko na ko ñëpp partagé fépp nit ñi gis ko procureur bi jug ci parce que dafa ëpp. man am naa kersa dugal ko ci sama page maa ngi vidéo bi am naa kersa dugal ko sama page mais maa ngi ak moom parce que dama ragal mu supprimer ko mais lii c'est trop procureur bi daf cee war a jug parce que c'est trop laxisme toogaayam bii nii dafa ëpp. gars yi dëgg la ñu ñoo yor nguur mais lañ def ndànk fàtte xel Naby Vision. li ñu dund 2012 ba 2024 noonu duñ ko dundaan coono bi ñu daj 2012 ba 2024 dootuñ ko dajati wax bu ñaaw bu ñu waxul 2012 ba 2024 dootuñ ñu ko waxati ndànk rek buñ demee émotion li leen di métti moo ñu métti ñun ñëpp. da ngay tëdd sa biir néeg dégg kenn kuy wax sa xol day métti mais ndànk rek nguur bi noonu lay doxee nguur du la métti rek wala du wax bu la métti rek nga woo procureur rek mu faj ko te saa ñii ñii liy lakk seen gan mu ngi ñëw léegi ngeen bal ma ci wax ji li leen di ñuus mu ngi ñëw léegi molo molo rek gis nga Macky Sall pratique bi doon doxee ku ko wax lu ko neexul rek mu woo procureur ñu jàpp la Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko doxewuñ noonu Naby Vision justice indépendant lañ wax ñu leen bàyyi justice man na kontaan naa si yéen de ni ngeen di défendre projet bi kontaan naa ci na gën leen yokku cere gën a yokku ñeex na gën a dëgër na gën a teeñ mais li concerne justice nañ ko bàyyi justice ñoom dinañ ko regle gis nga dëkk bii wallahi dina jaar ci yoon képp ku tegu ci yoon bu boobu boo tëddee nelawal ba yandoor na sa xel dal mais gis nga tappalekat yi lii yëpp dinañ ko régler gars yi def leen ndànk rek man de li ma leen di wax mooy fi ngeen nekk nii fi ngeen teg seen tànk nii bu leen ko teggi mukk képp ku fenal ñii wala képp ku leen waxal lu dul yoon rek jug leen demandir ko ci ci domaine bu nekk nag ku nekk num ko mën a mais pour ce qui est euh, c'est affaire de justice non lañ ko baye ak justice ñom dinañ ko régler man loolu rek la ni ñaan bu len menacer kenn bu len saaga kenn nabi Vision kenn dara tok len rek yeen domaine bi ngeen nekkon di défendre gaay continuer len ci domaine bobu non ngeen baye justice ak liggéeyam ta xam ni justice na def liggéeyam bu baaxa baaxa baax li baax lii mënul continuer yeen tamit buñ len ku len ku len wax ni li day continuer tamit war ngeen gëm ne lii mënul continuer te ñoom dinañ ko régler à leur manière toog leen rek seetaan yéen a yor nguur gis nga nguur boo ko yoree dafa am comportement bu war a yor comprendre ngeen loolu rek laa ñaan toog leen rek seetaan xol nag day xol moom day sot affaire day métti wallaahi mais dañ seetaan rek tabaski viendra gis nga li may wax nañ ko xool ci Macky sàll bi muy gouverner. dafa jëmmaloon suñu état Macky Sall bi muy gouverner chaise président bi daf ko jëmmaloon Macky bi muy gouverner sañoo toog nooyi nooyi bu foor ci plateau mu koy agressé amoo fitam waxuma la nag nga toog taal sa ring light à visage découvert nekk Sénégal di ko saaga mbaa ngay saaga ku taq ci moom Macky Sall il était ferme il était carré il était catégorique gis nga nguur du ay caaxaan yow say problème personnel say problème personnel la mais ñun doo tee suñuy institution ñu fal la ci bopp réew mi ngay tuutal ci li ñu la jox parce que tuutal li la jox weesuwul ay doomeeraam toog seen i kër daa ngii taa seen liñ laay ba jaxate mel ni màndikat boo ko xoolee lëndamaayam kanamam boo xoolee xam ne kii xaraam rek a nekk ci moom nga dem ci paabee di wooteeg moom diine toog di jàllale ci làmminam loo xam ne leeru ko wóoru ko du dëgg lii moo tax ngeen di xeex Ousmane Modou Oustaz Modou Fall lii moo tax ngeen koy geer que dëgg lay wax day dugg ci seen i kër wax la fa ne yéen ñiy woote diine yéen a gën a naafeq ci lu yàlla sàkk yow xam nga ne pas naafeq weesuwul ngay dëggal parce que da ngay affirmer ah waxoog ay dof te am na foo xam ne ci vidéo mi ngi naan soxna ba mu nekkoon ne Sonko daf ko bëgg a tuddee soxna day duul waa yow doomaraam nga ndax nekk doomaraam weesuwul nga ngay ngay nga ne yow da nitu yàlla nga nga ne yow da ngay jàllale ay message yu yàlla nga ne da wax lu ci li ci alxuraan nekk te yow doomaraam nga Pape Mbaye góor jigéen li muy wax dëgg la mbaaya nga baal ma ndax yéen fonk leen nit fonk leen doomu aadama ay mbaam ngeen billaahi barki démb laa seetaan benn vidéo woo mbaaye nekk ci benn armeer armeer yooyu amul Sénégal armeer yooyu amul Sénégal te mbaaye mi ngeen di tuddee borom ñaari tur yi yow oustaz boo moytu mba da ngay dee mbaaya dee mbaaya tàllal firdaw si yow nga ñaf ndayam jaxal na ma yaa bon ndax noo mënee toog di di affirmer may wax ngay jaaraat ci kàddu yu bon yi ngay woote nitu yàlla amoo koy déglu ko du baa jaxate te nee nga nitu yàlla ngay woote toog di wax loo xamante ne yow fekkee woo ko te yàlla lan la wax ci wax la leeru wax ma la yàlla lan la wax ci wax la leeru fekkee woo ko gisoo ko yëgoo ko tinu ko Ousmane Sonko d'accord mais respecter len suñu ay institution Ousmane Sonko jomaay bu ngeen mënul régler ñi ñu xamné ne yéen motoo leen ay kilifa mënoo len yor réew mi mënoo leen yor réew mi parce que mënoo yor rew te do régler nit ñi c'est impossible mënoo yor rew te do yar nit ñi Macky Sall daan na wax fi ku fi bëgg Sénégal gi ku bëgg yar nit ñi dëggantaan fo nga nek ben ben sadique et il était c'était un président sadique waaye Macky di nga def lii ci nguuram muy muy muy sedd depuis Ahmed Ndoye moo tijji baat bi Ahmed Ndoye ngeen waroon teel a freiné xoola un gouvernement c'est un gouvernement un état c'est un état du ngeen tuutal suñu état bu ngeen ko mënul yor ngeen delloo suñuy mbir ngeen wàcc c'est simple on ne peut pas vous permettre ngeen toog ñuy xaslu suñu ay institution yow premier ministre bi nga nekk ñun sénégalais grâce à ñun moo tax nga nekk premier ministre parce que ñoo fal njiitu réew mu fal le premier ministre am confiance yow def le premier ministre teg la si wetam yow premier ministre nga dellu fal ay gouvernement boo mënul respecter ñun mbubb biñ la solal nga summi ko teg ko fi dem sa parce que parce que nan la ñu wax leneen nan ngay tiimee suñu premier suñu institution di ko saaga suñu ay institution nga koy saaga ana yi procureur wala dëkk bi amul procureur Sénégal am procureur non Sénégal Sénégal Sénégal Sénégal c'est n'importe quoi. xam nga affaire Mame Makhtar Gueye bi waxu Mame Makhtar Gueye bi dama ne woon du ci wax quoi mais de fur et à mesure da ngay dox après ca affaire bi di ñëw sa bopp sa xol di gën di bon gis nga Mame Makhtar Gueye. li muy wax gëmu ko Mame Makhtar Gueye xeexalul Sénégal Mame Makhtar Gueye xeexalul diini bu dëgg rek dee dëgg gis nga Mame Makhtar Gueye man maa ngi génnewoon ci moom bi mu taxawee fii ne gars yi dañ doon publier liste góor jigéen yi affaire bi rëcc dem ci ñoom Nous Vision ñu ak liste ma jigéen c'est du loolu la Marta ok Wow, maam Makhtar Gueye wa comme liste góor jigéen yi mi ngi say loxo email bi ba daanu ci seeni loxo publier li wa sénégalais nous ñu xam ko jël responsabilité non ne parce que n'a rien gis nga manipulation yi ak toog di fen ngir bëgg loo def sa poos du jàll su ma gisee yenn imaam yi en plus toog di woote diine dañ may yéem parfois daggal seen ndey sax ngay bëgg parfois comme genre bu mel ne genre imaam yi gis nga imaam bu fekkente ne da ngay wote woo imam soo noppee wax ci li yàlla wax dangay ngay tëj sa gat gi nga noppi mais Sénégal da ngay gis kuy wote woo imam di dugg lu ci loolu lu yoonam nekkul ak di wax wax waxi dégg naa bala maa dee ay ñoom oustaz Makhtar Sarr en plus moom tamit mais lan mooy oustaz il fallait xam nga sénégalais parfois dañ ñuy nax ci parce que oustaz mooy ki nga xam ne moo gën a xam yàlla. oustaz mooy maître mooy jàngalekat du leneen du dara su bëgg diine ak waxal yàlla bu ca wax dëgg jotee li ngay wax yàlla taxatul génn leen ci seen affaire yi ngeen nekk seen tappale yi ak seen naafeq gi ngeen nekk lillaahi wa rasul yi génn leen ci parce que du jàll ko en fait da ngeen dem ci biir yow doo xam ñii ba xam Sénégal lañ bëgg doo xam lan la ñuy xeex mais li bax li Ousmane Sonko wax lepp pour Sénégal su fekkente ne yéen mënu leen a décortiquer décortiquer loolu noonu jéem a comprendre Ousmane Sonko lim mu doon wax lan la mais ngeen tëj seen gadi te seen loolu ngeen di jàngale seen diine jóg yooyu ngeen di xëcc ngeen lem ko ba mu ron ngeen dem denc ko parce que ay naafeq ngeen ay fenkat ngeen parce que gis dëgg teg ci sa bët di wax leneen loolu jukkay naafeq la. après ça comprendre quoi do comprendre parce que do xam ñi ay façon doomu adama lañ quoi do xam ban façon doomu adama lañ ñii ñu Sénégal ñu Sénégal ku ci avez ne que Makhtar Gueye soo expliquer am nga vous góor jigéen ñi Tu ko aduna yépp xam ko ñu xam ñan ñooy goor jigéen ñu ràññeeg leen ñu xam leen ko ni ay toléré

am na ci yenn yoo xam ne ni benn doomu xaraam bu bëggul dëkkam sax du ko def nit ki loolu nekk doomu xaram doomu xaraam sax war ngaa mën a bëgg sa dëkk tuuti am tuuti loo xam ne bëgg nga ko sa dëkk mais ñun mën ngeen ñoo gën a bëgg Sénégal suñ frère yi nga xam ne dañoo joxe seen bakkan ngir Sénégal ñooñu mën ngeen leen a gën a bëgg Sénégal gis nga seen affaire yi ngeen nekk nii génn leen ci espèce de imbécile parfois da ngay bëgg di dagg ay saaga mais dafay am nu mu demee quoi dafay am benn position booy nekk boo xam ne doo man di wax yenn yi di génne sa quoi mais parfois da nga saaga bi day ñëw ba fii. naa bi Vision.